sori di ñu tëj ba tey ji lii ñun mënatuñu rëcc ñun dundatuñu néew ci doole dañu xacc te ñu tëj

Euh, mu doon loo xam ne euh, wax ji bu bari wër na ko nit ñaa ngi ciy waxtaan di ci joxe seen xalaat ba tax na tey mu doon benn ponk ci ponk yi nga xam ne moom lañ nar a waxtaanee ci une émission amul na Dites di ci dalal nak ko xamné euh, député à l'Assemblée nationale nek secrétaire général bu AGPADS pads ñu diko wax Mamadou Diop euh, Croix nek aussi ancien ministre Salam alaykoum monsieur le ministre. alaykoum salam, Amadou. monsieur le ministre ni ma ko waxee euh, li nga xamné moy xew-xew bi changement de gouvernement bi ñu diko wax remaniement gouvernemental.

di jon julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu aussi seen téléspectateurs yi euh, di leen baal àq di leen balu àq ci weeru shahru ramadan bi nu nekk di ñaan daal lu nu ci jaamu yàlla mu defal nu ko lu kawe sunu njort jéggal ñu ci sunuy bàkkaar te may nu it nu di ko woor ay ati ati at ku ne ko bu loolu passé defe naa ne waaw li nga wax ci gouvernement bi lu lu am solo la xew-xew la ci wàllu politique bu ràññeeku <clears throat> nga laaj ma euh, ndax euh, du instabilité nekkut daal maanaam ñàkk a taaju waaw gu nguur gi ñàkk taaju mhm. euh, rawatina ci kaw mhm. waaw loolu lu am la loolu moom lu ñuy werante ñëpp d'accord nañ ci defe naa ne parce que ñaari at sax nag gars yi wax ñaari at ak genn wàll matuko avril 2012 le Macky Sall euh, nek président de la République euh, avril 2014 di ñaari at ñaari at ñu teg ci mai juin donc muy ñaari at ak ñaari weer nga am ci ñetti premier ministre bu fekkoon ne sax dafa yem foofu te gouvernement bi moom am stabilité maanaam taaju mhm. ministre bu ne fa nga ne nga ne fa di liggéey ba tey dinañu mën a ba dinañ dinañ mën a comprendre mais euh, du ñetti premier ministre rek euh, xam nga mbay agriculture bi euh, ñoom dañu wax ne agriculture dafa nekk ci xolu seeni yitte te it mbay moo noonu la war a demee naka jekk parce que bu demut dara du dem mais mbay mi agriculture bi am na ñetti ministre ci ñaari at yi Euh, buñ ci jógee ñu ne énergie xam nga koom-koom courant moo ko yor ci àddina bi ni muy doxe ku amul courant bu doy fent fu ne mu yegg fa ba pare bañ a cher ku ko amul sa économie mënta dem wax ja mën naa bari mais économie bi du dem te gis nañu ne courant bi doxut waxuma entreprise yi mais même ménage yi maanaam kër yi bés bu nekk courant baa ngi coupé entreprise yi waxi noppi kenn mënta liggéey artisan yi tailleur yi kenn mënta liggéey boo dencee jën mu nëb kenn mënta liggéey euh, énergie boobu changé nañu ministre bi ñetti yoon buñ ci jógee ñu dugg ci intérieur sécurité sécurité moom fu mu amul li may wax sax fu ex sécurité amul leneen mënu faa am. maanaam kaaraange réew mi. kaaraange réew mi changé nañu ñetti yoon. ministre ministère de des finances ok Amadou Ba ma nga fa ba tey mais euh, kii ñu fa euh, yóbbu mooy ñetteelu ministre du budget ci ñaari at ak ñaari weer Abdoulaye ministre des finances am ak bu budget daanaka toog nañu fukki at ak ñaar bougé wuñu moo tax euh, finance yi cool yi lu mu bare bari ci boobu jamono macha allah boo jëlee affaire étrangère ku mel ni Cheikh Tidiane Gadio. toog na fa juróom-ñeenti at changé wuñu ko moo tax liggéey na fa loo xam ne aussi macha allah ba tax na euh, maanaam gouvernement da dul affaire u caaxaan du car rapide vraiment taxawal fële ma wàcc kay dugg. arrêt boo yegg ah, rek wàccee ñu si def jàll déedéet gouvernement du car rapide de gouvernement euh, kuréel la goo xam ne gi am na réew boo demee Afrique du Sud buñ la falee ne la télécommunication wala yaa agriculture wala yaa li, daf lay wor ne gën gaa néew di nga fa am juróomi at mbaa juróom-ñaari at mbaa bu boba di nga mën liggéey liggéey bu dal liggéey tranquille def ay résultats waaye boo xam koo xam buñ la falee tey yaa ngi naan suba ma dem ginnaaw suba ma dem ginnaaw suba ma dem du sotti donc euh, defe naa ne daal mbir mi ci kii ci kii tànn Euh, moom defe naa ba tey moo pareegut moom maanaam njiitu réew mi waaw président Macky Sall moom nga yaakaar ne moo gisagul yoonam moo pareegut hmm. waaw am na sax ñu ne poste premier ministre boobu comme dafay chaque fois indi coow te ñu ko supprimer ndax ànd nga ci loolu de xam naa mooy <laughs> ku biiram di daw rek ñu ne nañ ko wutal lay duur hmm. nga lay duur moom mooy pour ku seere léegi yow sa hmm. biir di daw ñu jox la lay duur nga naan xam nga kooku dalay rey buñ ne dañuy soppi nañu supprimer poste premier pour lan lu koy lu koy wuutu d'abord lu tax ñu war ko dindi foog ñu wax ñu ko maanaam dualité bi ñuy gis léeg-léeg euh, amoon na fi diggante sa Seck ak Abdoulaye Wade ñu ñu ñu dem ba ñu woote ñu ne li xew léegi euh, dualité au sommet lañ koy woowe maanaam premier ministre bi ak président de la république bi dañuy euh, diirante mbagg ba tax na ki nga xam ne moo di premier ministre bi sax ñu ne day lorñe fauteuil bi di xool place fi président bi toog yooyu yëpp ay caaxaan la hmm. dualité mënta am régime bii fi nekk di régime présidentialiste ultra présidentialiste président bi mooy buur mooy bummi ñu naan ay dualité premier bi kooku ku koy wax xamut sax kon mais mënul gêner premier ministre bi mënut a gêner président bi ci wàllu politique ma ñëw ma ñëw cest man réew laay tax Sénégal laay wax c'est-à-dire kuy foye nguur waxuma ko ku dinaa ñëw ci yooyu yëpp damay wax ni yëf yi war a demee d'accord principe bi principe yi ni mu war a demee ci ku bëgg jële réew mi fii mu ne yóbbu ko fu gën a baax lay wax waxuma nag kuy caaxaan waa ji dem na ci télévision ba

xamna né président de la république mënut a dirante ak moom mënu ko. c'est lui qui nomme aux emplois hmm. civils et militaires. et qui dogam yor yor prérogative bi. et qui dogam voilà. koku moy li Sénégal bindo d'ailleurs moy sunu problème bu reuy xeyna dinañ ci dik ci waxtaan bi mais euh, pouvoiru président de la République ci Sénégal monu xawa xaw bu metti metti alors euh, bu ñu né nañu ko supprimer. man dama yaakaar ne kon xanaa dañ naan dañuy indi régime parlementaire bu ko de premier ministre bi nekk responsable devant le parlement Mamadou Dia noonu la meloon fii dégg naa ñuy wax waaw premier ministre yi tàmbalee ci Mamadou Dia euh, Habib Thiam nangam déedéet Mamadou Dia doon premier ministre yi. régime parlementaire la woon kooku régime parlementaire la woon président Mamadou daawuñu wax sax premier ministre Mamadou Dia. président président Mamadou Dia lañ doon. président du conseil moo doon le président du conseil. bien sûr. alors yor pouvoir yëpp di doxal ba mu xuloog Senghor ñu jàppante Senghor gagné ko maanaam exécutif gagné parlement bi. Mhm. ci la ñu commencé dund yi ñuy dund. donc président de la république mooy lépp assemblée du dara. Euh, justice bi sax la yàlla xam doy na euh, moom daal mooy lépp euh, loolu mooy sunu ngaañ kon ñiy wax nañ ko supprimer poste premier ministre ñoom li ñu bëgg kon mooy noo ngi waaj a diig au lieu ñu jox ñu bouée de sauvetage maanaam saak boo xam ne ngelaw ci ne nga langaamu ci mën a génn ñu jox la saak boo xam ne ay doje ci ne Euh, wékk la ko xam nga kooku yow da ngay daal kooku moom da ngay dig waaye léegi kon noo jàngatee problème yi nga xam ne à chaque fois mi ngi am entre président ak premier parce que gis nañ sur le prin sur le plan principe constitutionnel problème taxawul parce que réglé na sur les textes mais nag est-ce que léegi loolu problème bi ñuy gis nii actuellement lan moo ko waral pour man euh, li ci ëpp solo yaakaar naa mooy euh, li ñu wax ne moo leen yëkkati ba tax réew mi jox leen foofu la euh, problème bi ne li wolof naan weñ gaa nga bañe ca mbànja mànjaxaan nga mooy problème parce que président de la république mais <laughs> du buur ñi muy liggéeyal ay nawleem lañu ay nawleem lañu waaye buñ demee ba dugal ci bopp président de la république moom buur la ñi ci des teg ko ab sang mu teg leen moom leneen euh, foofu la mbir mi nekk mooy mooy problème mu Sénégal mooy problème mu Afrique mooy problème mu nit ku ñuul moo wax ay nawle la ñuy doon maanaam su ma nee a bu ñu jàppee ne yaakaare ne bee la dañu naan dañoo maa war a wax ne bee mhm. monsieur le président du a de bee la mhm. ma ne lu tax muy bee nga ne ma nangam ak nangam ak nangam waye jamono jiri ñu nek ni ci Sénégal peut-être sax ci Afrique boko waxe ñu gënal la nguur gi. mu ngok daf daf la ko wara jaral daf la ko wara jaral parce que bu fekke ne yow rew me tax man lool lool ci rew mi rek lay waxe de réew ma waxe euh wante euh, sunu nguur yi la ni mu bindo mom euh, dafa doy war lool boko Euh, dinañu dem ca moom nekkoo moom de gis nga ko nangam nangam nangam nangam alors bu ko kenn demee ñaar dem ñett dem ko nga ne mais pourtant mais Amadou moom lu ma ko def moom sama naka jekk nangam nangam nangam daal doy na waar bu yàggee mu ne la ca biti dootuñu seet Amadou li muy liggéey ak li mu liggéey euh, ñu ngi seet est-ce que ni muy doy na dal daal mën na sute wax loolu sax nga wax dafa am solo fi nga ne setatuñ ku liggéey setuñ ku liggéeyul parce que gis nañ ne bi nga xam élection locale yi wessuna dañu gis ñu ñu sanctionné ño xam ñi ñu neexal leen parce que résultat lañ def est-ce que lolu amna impact ci gouvernement nu muy doxee maanaam résultat ba nga am ci élection locale est-ce que war na mëna tax nga nekk un bon ministre wala un mauvais ministre oh, fofu ay ay mënees na ci jangat yu bare ngi ci lolu Euh, jàngat bu njëkk bi mooy dañu wax ne président Macky Sall moo woo cadre yi ne leen ku ci gañewul dinaa la dàq kooku problème la d'abord bu rëy rëy rëy parce que fokk ñu xam li ñu bëgg lan la boo ma joxee hmm, hydraulique dama daa bëgg ndox mi aw yoon ak assainissement ma mën na ca nga woo ma ne ma boo gañewut feekat lii ma la jox naa ko jël su fekkee maanduwuma lool man naa seet la fa ne ma seet lu ma ci mën a làqar ci ma làqar ci ko yóbbu ko fee pour bu ñu wotee ñu fal ma ndax ma mën a garder sama poste ma falee nag ma garder poste bi waaye bu ma xasee garder bu ma dee garder naa post bi ndax loolu itam nag fee rek lay toppatoo Euh, lu graw la affaire bu graw graw té lolu loolu yàgg di dox mais politiciens yi ñiy politique wuñu ci xel ba légui même ci sous Ablaye wad don na dox ci jamonoy Abdou Diouf don na dox ci jamonoy singor don na dox mais at mu né day gëna xoot di indi problème euh, def defna ben article bo xam ma ngi ci wax né bu nu continuer noonu région bu ne laaj ministre département bu ne laaj ministre nga am quarante cinq léegi euh, village bu ne dina laaj ministre euh, dëkku tax bu nekk dina laaj ministre. Mhm. surtout nak euh, am nañ ay 600 cent collectivité locale bu ku nekk bëggee am. ministre nu am 600 ministre. ministres. alors loolu xam nga ne lu doy war la mais politiciens yi dugal nañ lolu ci sen bop nit ñi aussi wa réew mi dugal nañ lolu ci sen bop Euh, bu ko defee def defe naa tey xaw ma démb sax dégg naa am na ñu doon kaas ne xaw ma ban gox amul ministre mais <laughs> te boo ko seetloo ministre yu baree bare fal nañ leen bañ jógee fi ndax def nañ dara fañ dëkk et ministre fal ñu ko pour mu def fa mu dëkk rek yem ci dañ ko fal pour mu liggéey Sénégal alors boo bëggee defar Macky Sall vingt cinq ministre la waxoon léegi mu ngi ci trente huit bon euh, déjà mbir la mais ñu ne bari na waaye teewul am na ñuy laaj te man defe naa euh, suñu réew mi la fukki ministre ak juróom doy na fi. quinze ministres 15 ministres doy na fi. mën na yor Sénégal. waaw mais comment lu ko gën a néew sax mën na ko yor mais man nga ne rek quinze ministres. Euh, mais de gise wuñ ko noonu lu ne dañ koy fajar fajar fajar toj mhm. xar ko pour mu bare ku nekk ñu jox la as lëf mhm. loolu du liggéey liggéeyunu dafa mel ni daal seddoo lay niru daal liggéeyunu seddoo seddoo lay gën a niru moom lay gën a waaw léegi gouvernement bu bees bi nga xam ne samp nañ ko kii di Mahammed Boun Abdallah Dionne jiite ko euh, yow noo ko gisee gouvernement bi euh, li tubaab di wax pléthorique bari na Mohamed ci boppam xam naa ko bu dee na ma ko xamee woon euh, soppikuut ku baax ku jub la ku li ñuy wut daal ci nit ci jikko pour mu mën a doxal li ñu ko jox mhm. moom euh, bu dee soppikuut ci diggante bi loolu moom mën na ko mhm. ñamu àndal ci gouvernement ba nag léegi nag yaakaar am nga yaakaar ci ñoom problème bi mooy loolu maanaam déjà fanweer ak juróom-ñett euh, même Je suis ko ministre de la culture et de la communication man suis le ministre de la culture et de la communication je suis PS ñaar la woon bi de la lañ ko ministre de la culture et de la communication Je di dem créer ministre des postes et télécommunications. man ba ma ministre de la culture et de la communication poste ak télécommunication ci man la néwon nga jël poste ak télécommunication jox keneen mu des lan kon média yi maanaam presse écrite télévision yi et cetera nga daal di taxawal ab secrétaire d'État chargé de la communication kon ministre de la communication moom lu muy toppatoo ak porte-parole ay affaire yu doy waar porte-parole feneen lañ ko yóbbu. voilà doy na waar daal. ci communication lañ ko daan taf. man defe naa ne euh, président yii yëpp muy def mi ngi jéem a seet rek pour gars vraiment kenn du mer voilà et cetera bon même waxoon sax dina rëq seen digg rëqul ndiggu kenn. Ah, parce am na ministre yu yu. ma ne dina ñu bàyyi leen ci gouvernement bi. ma ah. tey sax ña nga xam ne. maanaam waxoon na ko ba mu siiw mënu koo ñàkk bañ a def waaye ña nga xam ne gañewuñu mm, gis naa ne mi ngi leen di joxaat ay yëf mm-hmm. xëy na sax mu joxaat leen lu gën a baax lañu yoroon euh, du noonu du noonu il faut ñu xam li ñu bëgg man su ma la tegee fii moom nee na plan Sénégal émergent la la la yor bëgg mu dox plan Sénégal émergent baax na ba tey mais bu dee dama laa teg fii pour nga doxal nangam ci plan Sénégal émergent mënuma la ne capet yóbbu la ne la demal gagné fële après yow ci saw bopp sax dootoo xam tax ñu teg la fi loolu moo tax. du dañ la fay teg ngir politique wala dañ la fee teg ngir say compétence. voilà voilà mi ngoog. waaw dañuy dañuy wëndeelu rek dañuy wëndeelu rek. Mhm. d' accord yow euh, gouvernement bi loo yaakaar ne monsieur le ministre moo war a nekk priorité am c'est-à-dire que li mu war a song tout de suite faj ko ngir sénégalais yi mën a dund dund bu mucc ay song tout de suite faj tout de suite mënta ne ku la ko waxit maanaam euh, ci tubaab dañ naan priorité lan moo war a nekk ah, priorité gouvernement voilà ah, priorité ak euh, urgence bokkut itam Sénégal ah, waaye film tourné, toll nii dafa urgent tout est urgent comme on dit <laughs> féppay metti dal, comme mm. ni ñu koy waxee jàng am feebaru mag eh, jàngoro yi dafa dafa bari mais man jàpp ne gouvernement warna chin euh, cin chinul cinul ñetti tànk ñetti was ci wolof loolu lañ koy wax ñetti was tay tey euh fi ci Sénégal agriculture bi was la tank la ci cindi li électricité tànk la ci cindi dara ji tank la ci cindi ñett yoyu yaakar na ne mom nga wara tek bu ko defé cindi comme gaa yaa ngi xaar dafa melni nak euh vraiment nguru président Macky Sall mel ni cindi dal ñoo ngi xaar boobu te mel na ni mbaxalum doj. mbaxalum xeer. waaw mbaxalum xeer dafa mel ni daal ci ma waaw mi ngi mingi rek mi ngi baax. waaye dara ñorut gisuñu dara. Hmm. alors un problème. ba tax na euh, man defe naa ne ñett yooyu daal suñ ko suñ ko sóoru woon song ko. daara ji mën tuta dem gaare na. fi mu ne moom kenn mënatul la am yaakaar ci daara ji nu am fokk mu soppiku euh, am naa ci nag man ay xalaat présenté woon naa ko ci weeru novembre bële daara ji naka lañ ko war a mën a tëggaate ba mu mën a demaat mbay mi fokk ñu tëggaat ko mënta dem mbay moo xam ne wutewut ak carte parce que maanaam bu nawet ba neexee mbay ma baax bu nawet ba naqaree mbay ma bon mel ni loterie daal euh, kooku loterie la mais mënee sut a économie réew ci loterie donc il faut ñu régler problème mbay likoy régler ndox la ak yenen ak yenen ak yeneen mais ndox ci jitu ak suuf si suuf si boo ko seetloo ba euh, problème la euh, professeur Souran hmm, ku am xam-xam ku mandu denk nañ ko commission bobu mais euh, affaire bi lu lu lu xóot la bon wax naa ci mbay électricité bi moom daanaka mën naa cee bañ a wax ndax xëy na sax fii nuy waxtaane am na ñoo xam ne seen courant coupé na mën a dem donc daal euh, Mohamed man xam naa ne waaju baax la ku am ambition la ku ku xereñ la mais. am na sas. waaw ah, sas wu rëy a rëy. waaw dafa mel ni amoo yaakaar ci PSE bi nga xam ne moom sax moom lañ ko dénkoon avant muy nekk premier ministre. Le plan Sénégal émergent. Ah, plan Sénégal émergent bi li ma ci wax invité à ma Paris ma dem fa ja koy ba ma fa la ma la ma xam amut ambition. ah bon plan Sénégal émergent euh, amul ambition. ak li ñu ci ambition parce que 7 hmm. pour wut. Ah nenañu 2017. Nous avons am 7 mais <laughs> Burkina Faso 2012 am 8 2012 maanaam daaw jéeg am 8 Côte d'Ivoire ngi 9 Côte d'Ivoire ngi 9 Ghana version 10 Il y yow ngay 2017. ngay wut 7 pour cent ngay wut 7 pour cent xam nga ne loolu lu lu kéemaane la te kat sax ñu ndax xam nga ne daaw waxoon nañ ne ñoom amoon nañu taux de croissance su quatre bon taux de croissance il faut ma expliquer ko at mu ne noon dañ koy natt ci ma réew yi euh, ma seenu dox noonu noonu lañ koy natte at mu ne ñu seet ci alal ji ñu meññoon daaw ñaataa ci yokk téeméer bu ne ñaataa ci yokk loolu la ñuy wax bu dee téeméer bu ne boo nee dix pour cent ci Ghana mooy téeméer bu Ghana amoon daaw ren am na téeméer ak fukk Côte d'Ivoire bu dee 9 pour cent téeméer bu mu amoon daaw ren am na téeméer ak juróom-ñeent voilà nun nag nee nañu danoo bëgg 2017 nu am téeméer téeméer. boo jël jël. ci 2017 ñu teg ci ñu teg ci juróom-ñaar te ma ne la Burkina Faso mi nga xam ne réew la moo xam ne amul géej amul yu bare bare amu ko dafa dafa dafa euh, maa li Sénégal am daal ci ay ngëneel euh, moom amu ko. ci atum 2012 daaw jéeg moom téeméer bu ne amoon na ca moom amoon na juróom-ñett rax ca dolli euh, boo boo nee téeméer bu ne nangam yokk na ci fokk nga xam nangam boobee nangam loole nangam joojee lu tax lan moo ko yokk lan yokk googee lan moo ko indi euh, bu fekkee ne danga bëgg sag yokk am njariñ ci nit ñi day fekk mu jóge ci loo xam ne ñu baree nga cay yëngu boo nee mbay ñun Sénégal suñu taux de croissance maanaam li yokk mbay mi téeméer bu ne fukk ak juróom la ci soo demee Burkina la ca yokk téeméer bu ne mbay ma euh, agriculture ba daanaka mat na ca fanweer ñaar ñaar ca na fii ci Sénégal ah, bu fekkee ne yow da nga ne sama alal yokk na ñu seet la ko yokk ñu ne tourisme ko yokk du xam nga du sotti Ma'am, ño xam dañuy jóge bitim rew ñew fi nangam nam danaka la ñuy doon fere lépp fere nañ ko la tañu yegsi hmm. du euh yoyu mo moy moy moy problème yi euh, école bi itam nit ñi buñu amut xam-xam bu wër te xam-xam bobé macc jëm ci le rew ma soxla ñu man ca yëngu loli soko amul do dem électricité mom waxna ko soxlaul ma diko baamtu kon daal euh, dama wax ne plan Sénégal émergent maanaam nag qui peut le plus peut le moins maanaam man nee naa réew mi war naa mën a am ay taux de croissance su ñaari chiffre ñaari chiffre mooy nga yegg dix jëm kaw fukk jëm kaw loolu bu nu ko amut du nu mën a am développement loolu laa wax man ñoom nag juróom-ñaar la ñuy wut waaw bon bu ñu amee ba tey juróom-ñaar baax na waaye nag juróom-ñaar yi sax la mu laaj pour ñu am ko man dama koo gisagut. parce que boo seetloo yaa ngi koy wax sànq nee nga kii di président Macky Sall dafa mel ni day wut yoonam ah, parce que amoon na fi yoonu yokkute mu bàyyi ko indi PSE ñu gis changement premier ministre yi nu mu bare mu mel ni daal euh, làmbatu bi nga doon wax euh, mi ngi bëgg a. Euh, firndewu ma ma ma yokk ci sax ne. jógewul ci yoonu yokkute rek ñëw ci PSE de. directement ah, am na bu jaar na ci SND. waaw plan stratégique yi am na yoo xam ne da ko fay fekk nag. dafa déedéet dafa jógee ci yoonu yokkute. Hmm. daal di teg euh, stratégie nationale de développement économique SNDE. Hmm. bañ leen laajee ñu ne waaw yokk yoonu yokkute kat mu ngi ci biir SNDE. ah ñu ne waaw kon baax na. ñu daal ba ca yàgg ñu ne ah léegi kat dootul SNDE léegi PSE la plan hmm. Sénégal émergent ñu ne ana SNDE. ak yoonu yokkute ñu ne lépp a ngi ci biir PSE plan Sénégal émergent ba tey baax na ba tey baax na man daal euh, xam nga wax baat yeeg mm-hmm. euh, euh, jarute werante li ëpp solo mooy li nit ñi di dund mm-hmm. fan lañ ci toll man defe naa ne li nit ñi dund daal fiñ ci toll moom soreegut nawet baa ngi ni doxut loolu dax danañ ci dellu siwaat waaye ci li nit ñuy dund rawatina fii ñu nekk ci dakaar gis nañ fi euh, coupure ndox bu metti fan yi te nee nañ sax bu ñu deful ndànk dana dana mat deux mois loolu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sd ak SONES wax mu doon loo xam ne nar na tar lool ci Sénégal yi tombeek nag weeru tàngaay weeru koor euh, mu mel ni daal euh, nguur gi fàggandikuwuñu woon parce que dañ ne gouverner c'est prévoir fàggandikuwuñu woon pour mën a li nga xam ne mooy pénurie ndox boobu bañ am Euh, mooy mooy li ma la wax léegi ne la maanaam <laughs> àddina lu ne danga koy waajal boo ko waajalul rek du sotti euh, man musuma gént ne ama ama wootee lu ma woon Macky Sall mais musuma gént ne euh, moom bu toogee dina dawal ñaari at bat yu topp te du régler problème mu courant bi le ak ndox mi le parce que loolu moom moo doon loo xam ne ak lu ma manti daj ak lu ma mënti dégg lii moom fokk ma lijjanti ko ci simila ak saala simila ak saala nag waxin la mais fokk ma lijjanti ko ci lu mu gën gaaw man loolu laa foogoon mais defuñu ko parce que c'est-à-dire problème bi mooy est-ce que euh, lan mooy yitte la yitte ji lan la exactement lan la yitte ji. maanaam ni ma ko waxee sank rek lan moy sen priorité. voilà est-ce que yitte ji mooy vraiment xeex yeeg xuloo yeeg fetalante yi ci biir parti bi jappal bayil est-ce que lolu la walla liggéey régler problème yi nga xamné dañu non nañ fi jëlé Ablaye di fi ki pour mu lijjanti problème ah boko sétlo dafa melni nak problème yi dalen di bett chaque fois bu dalé sen kaw ñu né ah euh wut explication demande bi mo yokku. waaye ñëpp xam nañ ne en période de chaleur maanaam tàngaay demande bi day gën a yokk ci wàllu ci wàllu électricité gën a yokk ci wàllu ndox loolu yàgg na fay am Amadou ma ne laaju ñu leen lu tax ndox ñu amul laaju ñu leen ko lu ñu leen laaj ndox am loolu rek la ñu laaj <laughs> acca boobu lu tax courant amut laaju ça intéresse pas man defe naa ne sénégalais yi di fanaan ci tàngoor kenn laaju leen nga ñëw di leen expliquer waaw courant amut ndax kii non non li ñu laaj ñoom mooy nga jox leen courant dañ la fee teg pour nga jox leen courant surtout que courant bi mayoo leen ko dañ koy jënd tey jënd bu seer la courant bu seer a seer ba courant bi seer te mënoo koo joxe surtout facture ndox yi mujjee ñëw euh, nit ñaa ngi ñaxtu dafa mel ni dañ koo duble ndox mi seer te ah. mënoo koo joxe sénégalais yi may déglu xam nañ li may wax franchement naka ngay fale nit mënu la jox sax loo loo loo loo niite sa kër mënu la jox loo naan Il n'y ñu a pas de salaire hein? mais mais mais mais toujours euh, monsieur le ministre ci ne euh, euh, euh, économie Sénégal ñu gis choix coopération nord sud bi dafa au détriment de la coopération sud-sud bi nga xam dit di président Ablaye Wad, Tegon na Nous fi ñu gis tamit le retour hein, de de de grandes entreprises françaises ci mel ni Bolloré euh, fan yee génn gis nañ fi coow li nga xam ne Necotrans indi na ci port bi ci mool 8 près de ay 3000 emplois yu 10 entreprises presque yu Sénégal qui xam ne dañ leen nar a teg ci touche bi euh, choix la choix politique euh, de gouvernance la bu nguuru Macky Sall bi yow noo ko gise waaw <laughs> loolu mooy mooy mooy mbir mi mooy mbir mi euh, seet na seet nag lu ko waral lu waral euh, delloo si tubaab yi mel ni réew mi léegi dafa duggaat ci loxo tubaab bu France nekkaat colonie maa gouverneur bu weex amatut commandant de cercle bu weex amatut Euh, chef de canton amatut waaye nag li taxoon ñooñee ne fi muy koom-koom France teg loxoom ci koom-koomu Sénégal moom ba tey jógu fi loolu euh, Abdoulaye Wade am ci ay jéego yu am solo yu mu doxoon moo taxit dañ koo xeex ba mu jóge fi maanaam ah oui dañ koo xeex élection yi passé mm. ah oui da nga bëgg wax ne tubaab yooyu ñoo ko lu ñu ci man def nañu ko pour Abdoulaye dem du ñoom rek ak ñeneen parce que Abdoulaye Wade amoon na ay ndes am na ay défaut mais amoon na ay qualité qualité bokk na ci qualité yi mu amoon nit ku weex du ko raamal du ko sukkal ja lu jàppul ne nit ku weex da ko sut lu tel tol ni tarfatal ay ni dégg nga wax ji moo taxit ñoom it dañ koo tegoon fu kawe kawe parce que it gars yi noonu lañ mel wuude nu mu la gisee la lay ëwale Euh, léegi nag dellusi na et puis dellu seenu dikkaat dikkaat bu ñaaw bu ñaaw a ñaaw a a ñaaw boo mm. xam ne man defe woon naa ne 1959 la jeex ñëw fekk fa ay nit yuy liggéey am ay entreprise di ko doxal ñetti junniy euh, euh, liggéeykat di ay boroomi kër dégg nga maam nga ñëw ne le bon dégagé jox naa ko diw jox naa ko diw jox naa ko diw ci ci ban fànn mais Sénégal ñoom moomuñu ko xam nga dañ leen koo dénk attention. te li ñuy joxe alalu réew mi la. attention Sénégal kenn nit moomu ko benn sénégalais moomu ko ñun ñëpp dañ koo bokk donc suñ la fi tegee nga war a yaxanal war a fexe ba alal ji yokk am am bi yokku xale yi am xëy nit ñi seen nekkin gën a naat nga jël. Hmm, loolee ñu la dénk di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñoom ñeneen la ñuy defaral awma benn problème ak France France ak Sénégal seen diggante dafa yàgg soxlawul ñu di ci dellusi mais na France di sàmme intérêt noonu la Sénégalais war Sénégal war a sàmme intérêt mbaa sax nu ko ëpp ñi nga xam ne ay Chine Inde Brésil gile Afrique du Sud même dégg nga ak ñeneen euh, euh, Abdoulaye Wade sore woon na lool ci coopération bi ak ñoom euh, mais xaw nañ leen a négliger loolu nag xaw ma lu tax mais jàpp ma ne développement Sénégal a tax. Mhm. ah déedéet jàpp ma loolu. parce que bu doon ne développement Sénégal rek a tax. xalaatoo ne dañu yaakaar ne tubaab yooyu liggéey bi ñoom ñoo ko gën a mën moo tax ñu teg leen fa. non du loolu maa gën a man kay <laughs> ñu fi ne di ko liggéey boobu ba tey ñoom kay xam nañ ko nga ne leen dem leen ma indi ku bees waaw koo xam ne yow liggéey na fukki at ñaar fukki at fanweeri at ci mbir mi nga ne ko yow demal ma indi ku bees mu jàng loolu taxawut nañ seet feneen ma yem foofu daal <laughs> waaw <laughs> léegi nañ waxtaan ci li nga xam ne moo di euh, mbay mi sànq junj nga ko ne euh, nu mu tuddati euh, mooy li tubaab di wax plier hmm, nga boole ko ci ñetti pilier yi nga xam ne ñoo war a téye li nga xam ne mooy réew mm-hmm. ah, mu bokk ci moom agriculture doon mm-hmm. lu am solo ñu jublu ci campagne agricole mm-hmm. euh, nguur gi di ndamoon ne intrant yu ci bari fi mu toll ni nekk na en place waaye li jaaxal nit ñi mooy baykat yu bari aussi dañ taxaw ne ñoom jotuñu ci yow noo jàngate loolu ah waaw xam nga xam nga kii ñëw fii sàcc sa ordinateur nga ne ko nuus nga xam ne la li tubaab di wax flag flagrant délit am loo xam ne moom da cee teg bët amut lu ñuy werante mais même boo ko yóbbu tribunal laaj ko fokk mu lay fokk mu lay ñoom dañuy lay rek hmm. lay nag man duma ci duma ci perte temps baykat yi xam nañu ndax Euh, li gouvernement bi warloo ak ñoom def nañ def na ko wala déet béykat yi xam nañ ko bis bu ne yow yaa ngi déglu rajo yi ak télévision yi yaa ngi liir journaux yi yaa ngi dem ci eh, ci fële nga dëkk yaa ngi fay dem xam nga ndax ñoom la ñu wax moo am wala ndax li gouvernement bi wax a am donc euh, bi may ñëw sànq maa ngi téléphoné ci biir réew mi doon lijjanti ay yëf daan ne waa ji waa mais fu ngeen toll léegi ci nawet bi mu ne ma ah Euh, lundi bi passé day euh, nee nañ jiw jiw wi yegsi na mhm. lundi maanaam bërki démb <laughs> te taw baa ngi ci réew mi maanaam foofu nga woote bala boobu euh, jiw baa ngi fay soog a yegsi ma nga ba jotaguñ ci xam nga bu digg diggante yegsi na ak jot naa ci xam nga non ay problème la maanaam lu tol ni mbay lu toll ni mbay mérité Euh, jafe-jafe yi nga xamné d'ailleurs c'est de petits problèmes c'est de petits problèmes heure bi waroon na fekk vraiment ñuy euh manam sank dama la ne mi ngi melni loterie bu nayet bi baxé bu taw bi amé nayet bi bax bu amul nangam nangam dano wara fexé ba ci kaw gi nit ki baykat bi di bana bay fukki weer noppalu ñaari weer xam nga fonctionnaire bi day liggéey fukki weer ak benn noppalu jël vacances benn weer mais baykat bi na bay fukki weer suñu fexee ba mbayum noor dox loolu ndox a koy indi te li nu am ci ndox ci Sénégal kenn xamut nu mu toll boroom xam-xam yi nee nañu am na ci am nañu fii ñaar fukki milliards ak ñeenti milliards ci mètre cube vingt quatre mille milliards

wax nañu ma ne euh, dëkk bu ndaw la wax nañu ma ne ci ci soble bay nañu ren ci soble lu ëpp euh, junni ak juróomi téeméeri bërigo ci soble am kooku ci dëkk bu ndaw ñoo xam ne xëy na buñ bay gerte lañ daan bay tuuti hmm. ñebbe tuuti dugub xëy na seen revenu maa li ñuy am ci at mi boo ko seetee du mat du weesu juróom fukki junni mais euh, seen campagne ñu soble rek euh, xëy na kenn ku ci ne en moyenne am nga ci téeméeri junni mbaa téeméer ak ñeent fukk kon xam nga ne euh, lu war a mën a nekk la fépp man daal defe naa ci côté yooyu la ñu war a jëm ma ni ma la ko waxee defar naa lu ma tudde vision vision nag gars yi dañuy jaawale xam nga fii programme la ñuy wax PSE plan Sénégal émergent mais ana vision ba. ah xëy na ma nga ci biir. déedéet non non hmm. amul vision ça da ngay dégager vision ma fan laa jëm. Hmm. fan la bëgg dem. loolu ngay ba gis yoon wi. waaw loolu ngay jëkk rëdd. bu ko defee yoon woowee nag boo ko kiiyee ba pare nga ne ban projet de société laa am parce que indi ay nit ñi ami kër ami oto am xaalis non du loolu rek.

ñu gis né bi résultat yi génnee Benno Bokk yaakar li ciow li bari yépp ñom nak ñoo ëppale ay ay collectivités locales yu ñu remporté <laughs> nam yéen opposition bi nanguwu leen ko waaye li am ba dess moy li ay chiffre la donc euh, li nga xamné mom modi Benno Bokk yaakar muy coalition bi and ak président Macky Sall ñoo ëppale ay collectivité locale. manam Macky Sall nam ñàkk na ay ville yu mak yu nane comme Thiès Dakar Touba waaye nag bokk ci waaw ma ñëwoon Dakar bokku ci parce que ñoom boole nañ ko ci li ñu gagné. ah ñoom léegi jël nañ ko <laughs> waaw d'accord ba tax na daal en tout cas mel na ni daal Macky Sall daal door na opposition bi sànni karawaas ba noo ko gisee <laughs> ma dama wax ne xalaat boobu man damay ñaan mu sax ci seen biir te yàgg ci waaw ñu jàpp na ñoom gagné nañu parce que bu yàggee ci seen biir sax ci Euh, seen xel dina dal bu ko defee bu ñuy dem 2017 di vote ji euh, bu ñuy am mbett xam nga ñu am mbett moo xam ne euh, maanaam ku jàppoon ne di nga gañe ba lépp aw yoon ñu gañe la moo gën nguuru Afrique gu jàpp ne du gañe accroché wu ci pouvoir da fay graw trop trop trop trop man nak pour senegal man mucc ci lolu kon ñom nañu japp ne gagné nañu waye nak bu lolu passé kay waxtanit wax deug ci la yow bu fekke ne perte ga dakar Khalifa Sall mo don maire de Dakar nga am 26 bang koy am mom nek na maire ak partem di parti socialiste ndax jël nga nguur nga ne kon léegi yow kat yow mi ma jàppale ba ma am lii li nga yor dama koo soxla. mbaa nga ñëw sama biir parti. waaw mbaa la nga ne woon nga bako ñëw ci man. Mhm. ay yu doy waar la ay yu doy waar dégg euh, waaw léegi kooka gañe nga daal di jël ngañaay loole. dugal ko ci sa gafaka ne da koy compter daal ne way ba noo bokk yaakaar moo gañe Dakar non. <laughs> parce que dakaar amoon na liste benn bokk yaakaar. <laughs> bokk daal di perte. waaw dégg nga nga perte Dakar perte Pikine perte Thiès perte Xombal perte Bambey perte Diourbel perte Mbacké perte Touba axe boobu Dakar Touba 70 pour cent électorat bi ma nga fa téeméer buy wote daanaka juróom-ñaar fukk yi. su ko ëpput sax foofu la ne diggante Dakar ba Touba bu ma la déggee mooy maanaam Benno Bokk Yaakaar mën nañ ëppale ay collectivité locale yuñ gañe waaye yan collectivité locale lañ gañe suffrage bi laay wax mu ngoog mooy li nga wax Amadou maanaam ñaat nit ñi wote nit ñi leen dumóoyu ñaata lañu loolu moo ëpp solo parce que élection présidentielle du ñu compter ñaaxar euh, Gossas euh, Foundiougne déedéet ñaata carte la ku nekk am loolu la ñuy wàññi dama la ne axe boobu euh, dakaar Touba ñi ëpp ci ñuy wote ci Sénégal foofu lañ ne yow nga ñàkk loolu au lieu nga dem toog xool ne ah man kat mbir xew na nga yor saw làmmiñ fu ne nga taxaw fa pujub néeg bu ne nga dem fa ne maa gañe alhamdulilah baax na waaye man de yaakaar na ndey kontaan na nu Mm. ah sant nañu yéen opposition bi ah oui bu baax a baax a baax parce que xam nga ne opposition boo xam ne demoon nañu ba ñëpp ne dafa dee ñu def élection ah mu demee ni mu demee <laughs> ah, defe naa ne day yow perte nga Ndakaaru perte nga Pikine perte Thiès ma jëm côté bële perte Ndar. ah déet Ndar ah, kat Mansour Faye perte nañ Ndar Ndar. Euh, Baraaya ëpp leen na Baraaya recours la def. ëpp leen a ëpp leen a Mansour Faye juróom-ñetti téeméeri carte. déet résultat yi waxul loolu ma ne ma ne résultat yi gën Amadou dama ne. <laughs> résultat yi monsieur le verbal xam nga mm-hmm. bureau bu ne la fa xew. Mm-hmm. ñëpp a ko xam léegi Sénégal kenn mënatu la lifin. ñu dem ñu ne dañoo annuler ay bureau de vote pour Baraaya ba ba kële far ëpple ko léegi moom dem na tribunal. yóbbu na ay firndeem ah nu ñu xaar ba xam lu tribunal bi maanaam daal dafa am ay bureau de vote ah, yu ñu annulé waaw looloo tax Mansour fay jàll ca kanam Mansour Faye jàll ca kanam te am na ci ay <laughs> ñëwateel Mansour fay am na soxlawul ma di ci sore dem nañ tribunal nañu déglu euh, nga perte Ziguinchor kooku itam ay mbir la ak feneen ak feneen et puis élection bi raw gàddu la raw gàddu bu nu dee fukk diwut wut euh, maanaam benn mairie yow nga raw ci yaa yaa arrivé en tête waaye yow fanweer nga am dangay jël lépp daanaka bu ko defee juróom fukki nit yi la ñoom du am dara. maanaam yaa jiitu yaa jiitu waaye yaa gën a néewi voix maanaam bu ñu totaliser ñi la contre yëpp. voilà ñoom seen i voix bu téeméeri nit watee ëpp sa voix yow nga xam ne yaa jàll. bu téeméeri nit watee. Mhm. téeméeri wote fanweer woteel la ci. juróom ñaar fukki woteel keneen. comme raw gàddu la waaw comme woteel ñeneen. Mhm. comme raw gàddu la yow da ngay daal di jël euh, bu dee bu dee bu dee bu dee ñaar fukki conseil da ngay daal di jël fukki def ci sa poche fukki ya ca des nga séddoo koog ñi ci des bu ko defee comme 30 pour cent di nga am ñett. mu doon fukk ak ñett juróom-ñaar fukk yële ñoom juróom-ñaar la ñuy am waaw loolu nag problème mu système bi nga xam ne mooy système électoral moom la ñu war a toogaat xool ko ba loolu ba def naa proposition de loi yóbbu ko assemblée nationale boobaak léegi mat na at mbir moomu waaw boobaak léegi mat na at waa loolu moom lu jar a saytu la parce que ça pose ça pose problème waaw loolu sa pose problème sànq wax nga ko

donc kooku du dévolution mais gestion là, am nous ñu ko tuddee gestion dynastique du pouvoir Madame famille du président ni ñu dugalee seen loxo ci ni ñuy gérer pouvoir bi dafa mel les dynasties, dynastie te ñu wax dynastie Faye Sall Timbo mon mon moo nekk ma bëggoon rek nga wax ci sa njàngat tuuti. waaw xam nga man dama defe ne Sénégalais yi ni ñu rawee politiciens yi dafa metti trop trop trop te bokk na ci suñuy jàngoro maanaam politique boo koy def dangay ñëw ci say nawle te maanaam ay ay ay ay jaami yàlla ni yow ay nit ni yow nga ne leen mankat dama leen a bëgg a jiite affaire bu garaaw a ngoog dëgg la wala déet mankat dama leen a bëgg jiite jiital leen ma ci lii nu nekk kooku da nga war a respecter nit ñi bu baax a baax a baax parce que ñalay lay jiitalit dañ lay respecter mais gaay ñom ñoom nañu né batay ñi ngi ci jamono nguur nguuru xam nga amna ci ñom sax ku né ku wax ci sen télévision mi né wa dañuy nguuru mu ne moom day nguuru daanaka ci bobu logique la euh amna ñu doon ñaxtu né lu tax Aliou Sall di doon candidat Jaway wala Mansour Faye di doon candidat man dama wax ne bu dee élection tànn ku mu neex présenté la. parce que peuple bi ñooy tànn. c'est moom laa gëm c'est su fekkente ne peuple bi dañu décider euh, fal euh, soxnaas makki Sall rakki Macky Sall jarbaatu makki Sall doomi Macky mais nañ ko fal c'est le peuple nañu décider ñoom ñoo xam waaye nag su dee man dañ maa fal pour ma doxal réew mi. nga xam ne moom damay nommer ay décret damay signé may tànn kooku nag dama war a seet bu baax ni ma koy doxale daal mel na ni foofu problème am na fa wax nga ko soxlawul ma di ci dellusi si euh, man defe naa ne njiit dafa tiis daal dafa tiis bu bu jiitoo dafa yu baree bare bare yoo war a moytu yoo war di bañ a def parce que euh, sénégalais bari nañuy défaut waaye bëgg nañu ki ñuy jiital moom néew ay défaut lool <laughs> dégg wax mm, mm. ñoom mel nañ ni ñu mel waaye nag ki ñuy jiital moom bëgg nañu mu gaa nag sàmmoontewuñu ak loolu ndaxam day eh, ñi bari ñi fi teg euh, Macky Sall loolu la ñu dugaloon ci bopp sénégalais yi ba tax sénégalais yi dumooyu Ablaye Wade. maanaam rupture. waaw dañ fiy jëlee li fi nekk. voilà indi leneen. déjà 2009 dañ ne su ngeen woteelee euh, soppi euh, woteel ngeen doomi Ablaye Wade pour mu jël dakaar ba pare jaar ci dakaar nag pour jël Sénégal man mosuma gëm loolu gëm loolu maanaam maanaam. Euh, euh, pas gëm est-ce que loolu la wàdd bëggoon a def ak déedéet waxuma loolu li ma mësuta gëm mooy ne luy xew ci yeneeni réew am na ci ma maanaam Sénégal gi loolu man fee xew mësuma koo gëm donc euh, ñi def loolu ñi ngi koy def ba tey nañ leen bàyyi ak peuple bi bés dina ñëw bu boobaa dinañ ko rëccu waaw bés dina ñëw euh, li ñu doon wax sànq balaa may dugg ci kaaw Mansour Faye mooy kaaw Karim Wade notamment traque des biens mal acquis euh, am na ñu ne comme Mimi Touré muy Aminata Touré nekkoon premier ministre nekkoon sax avant loolu ministre de la justice moom combat boppam la woon nii ñu ko génnee ci gouvernement bi boo ñu deful ndànk euh, bien traque des biens mal acquis dana ci jaare nax saay mais dafa naax saay ba pare ko loolu ba mu déparé la daanu ba mu déparé la daanu parce que Euh, xam nga aussi maam du caageenug euh, Amadou euh, man wateel nga ma ma falu kon maa la ëpp xel maa la gën a muus maa la gën a ñor c'est pas vrai fii kenn gënu fee ñor kenn am déet bon ba ñu dugalee mbir moom le sénégalais yu bare bare bare gis ne lii kat du li ñuy wax la ñuy yëkkati par exemple boo yëkkatee ne damay euh, rëbb ñi luubal alalu réew mi xam nga ñëpp dañ la ne ah waaw góore waay bu ko defee yow loolu ngay yëkkati waaye nag ca suuf leneen ngay def loolu moo moo moo leen dal te bërki bu France nee na li ñuy doon jiiñ Karim Wade fii ci réew muñ naa France mun gisuñu ci dara kayit ga jël nañ ko denc classé sans suite lool la wal tubaab di wax. ak Luxembourg xaw ma. Luxembourg démb mm-hmm. xaw ma tey. Mm-hmm. ñoom it nee nañu gisuñu ci dara classé cent suite. feneen noonu feneen noonu feneen noonu pourtant ñu ngi tëj Karim Wade ba tey kon euh, xam nga dañ noon ñenn ñeneen ñaari junniy milliards la woon ak juróomi téeméer yoo xam ne ma nga France bokkut ak ñeenti junni milliards yu nekk xaw ma fan euh, ak aéroport sàngam ak nangam maanaam daal liñ doon wax mag <laughs> Karim moo doon. ministre du ciel. et de la maanaam moo yoroon jaww ji yor géej gi. yor waaw léegi daanaka dafa mel ni kon. Euh, sàcc na jaww ji sàcc géej gi sàcc suuf si. léegi nag ñun di ko wër waaye waaye jaww ji ak suuf si neexut a denc de waaw neexut a nëbb ma ngoog waaw loolu wër nañu dund na waaye foo ko moo wër nañu nag àddina bi fu ne dem nañu fa <laughs> hmm. euh, am na ñu gëmoon loolu mais ginnaaw bi gis nañ ne euh, loola yëkkatiwu leen woon Euh, maanaam maa xeex ay adversaire politique moo leen yëkkati woon ah. euh, euh, ma daaneel foofu li ma ciy daaneel mooy ala kulli alin man nee naa Karim Wade yow waroon nga mën a Macky Sall bu la yónnee facture doo ko mën a fay li mu la liggéeyal mënoo ko koo fay doon nga ah, maanaam da koo defal promotion doon nga wër réew mi fukki at guddeeg bëccëg fu ne nga taxaw fa te lii mu la defal doo ko am loolu de wax naa ko ko te man loolu laa gëm itam waaw d'accord <laughs> waaw monsieur le ministre dama bëgg rek ñu jeexal euh, parce que xaj euh, euh, waxtu bi xoj nañu muy ci tënk rek li nga xam ne moo di mandat wu président de la république bi Macky Sall ne moom dina ko jëlee sept ans indi ko cinq ans te ba léegi waxagu ci lu leer yow référendum bi nga gëm muy voie référendaire wala voie parlementaire ban nga ci gëm ak wàññi bi loo ci xalaat. non vraiment président Macky Sall kay wax na lu leer nag yéen itam ci mbir mi saa yu ci masaan wax nee na baamtu na lam waxoon juróomi at. xanaa kay dañ caa yëggagul rek moo tax ngeen yàkkamti rek waaye moom. loolu waaw loolu la wax te defe naa ne dina ko def yaakaar naa ne du ci dellu dellu dellu ginnaaw euh, mais da nga ma jox occasion rek xëy na ma foofu lay tëjee aussi ma wax ne Sénégal tey mu feebar la euh, feebaru Sénégal du tali yu toj wala dispensaire yu manke, wala école bu doxut maa yi nu fi yep, waa ak courant beeg ndox meeg yooyu yëpp xam nga ne ay jàmbat la mais du loolu mooy feebar bi mi ngi mel ni am hypertension sa bop di metti la aspirine bi dal la koy régler Sénégal liko fébar moy son régime présidentialiste du jëmmi ki fi teg tok tay wala jëmmi fi wut wala jëmmi ka ko euh, euh, problème institution manam ni réew euh, euh, euh, loi yon yi nga xamné moko moko kenn yi ko téye moo fënax yooyu la ñu war a moolaat moom la ñu suñu ko molaté ah, président Amadou makhtar mbaw mom la président Macky Sall mu def liggéey def na liggéey bu am solo man toog na ak mom délégation sama parti ak ñom ñu tok ñaari waxtu waxtaan gis na ne am yu ama ama ama am mana yo xamné Euh, liggéey nañ ko du la liggéey lépp lañu war a mën a jàpp waaye euh, man defe naa ne président Macky Sall li mu war a def ma dégg naa ko mu dem ci Chine ne dinaa seet liggéey bi li ma ci ñor ma kii ko li ci des ma kii déedéet du noonu joxuñu ko liggéey pour moom mu seet li ko ci ñor ak li ko ci ñor déedéet li mu war a def mooy la Abdou juuf defoon ca jamono ba ñuy tëggaat code électoral mu nekkoon révolution le premier code électoral consensuel révolution le ci Sénégal parce que loolu su amul Sénégal mënoon na xëy dugg ci guerre civile. ne je ne changerai même pas une virgule man mi, maa nga cha xol waxtan wowe woowee ca ben nga ba ca mujjantaan nga ba ñu di wax ak Abdou Diouf loolu la wax duma ci changer virgule té non la ko doxalé té loolu mo indi jàmm ci élection boobu ba tey gis mosoo gis ñu génn ci élection nit ñi di reyanteeka di di génte man defe naa ne kon liggéey boobee na woote euh, moo xam nu ko neex na ko ko tudde parce que bu léegi sax boo nee tur sàngam fokk ñu jéem a diingat loolu bëgguma ñu dugg ci boobu débat na woo ñi ko war a séq ñu séq ko nee na parti politique yi bari na nañ ko waxtaane foofa nee na dafa bëgg dindi mandat bi. Mhm. Euh, juróom-ñaari at yóbbu juróomi at dina dinañu dinañu dinañu xam ban yoon la ñuy war a mën a jaar pour régler ko te coow du jib euh, ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen euh, loolu daal laa yaakaar ne moom la war a def maanaam réforme bi du rek dindi juróom-ñaari at yóbbu juróomi at. pouvoir yi président de la république yor nga xam ne keneen yor dara loolu il faut ñu rééquilibrer ko ñii àtte yor li ñu war a yor ñii tëral loi assemblée nationale député yi li ñu war a yor exécutif bi li mu war a yor jàmm na ñooy. jërëjëf euh, Mamadou Diop euh, Decroix euh, Africa 7 lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm Amadou di la sant. Mhm. jërëjëf yéen itam mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne yéen a ngi doon seetaan seen émission amul nëbboo amul nëbboo nag doon dalal tey ki nga xam ne mooy Mamadou Diop Decroix. du secrétaire général au AJPADS n'est que député à l'Assemblée nationale n'est ancien ministre ñu dalal ko fii ci émission amul Nobo. nous avons jox rendez-vous euh, dimanche bii di ñëw ni ngeen ko émission amul dimanche bu jot la 14h Mme maanaam ñaari waxtu ñu di rediffuser mardi bu 21h Mme Jérôme juróom Wartou, waxtu bu ko kenn tardé ni avons fait faral di waxee fii la lépp di leeree amul jëf. Merci beaucoup. Et du courage. Merci. Mm. yi You're not to your lee You mënatuñu not ñun your.